D'abord, la loi d'amnistie, vous êtes pour ou contre Non, nous on est contre la loi d'amnistie. Parce que xam nga amnistie xëy benn jour rek ñun fii dara mos fi xew nañ dem loolu ne serait-ce que pour des gens qui ont perdu la vie ne serait-ce pour ces gens qui avaient perdu la vie mais aussi am na fii ñoo xamante ne ba ilaa yomi diin dañuy dépendant est-ce xam nga Pastef fi mu nekk nii ba fi mu nekk nii dafa yore ay nit dëkkal leen fenn di leen yóbbu rendez-vous régulièrement est xam nga ne am na ay paraplégiques am ñoo xamante ne perd nañ ay membranes yoo xamante ne mënatuñu leen dara seen bopp mënatuñu liggéeyal seen bopp fii ba ñuy génn àdduna c'est-à-dire que il s'est passé énormément de choses ni ci alerté alerté waat nga xëy benn jour li fi xew yëpp même Ousmane Sonko lui-même a fait plusieurs vidéos yoo xamante ne dafay toog di artu président Macky Sall dalal defal nank mbuur dafay jeex lii jaru ko man du ma fayantoo xam nga ki dem ba nga xamante ne daanaka si opposition moo nekk pôle position taxaw ne la man du ma fayantoo publiquement te xam nga Ousmane Sonko nitu kaddu xam nañ ko bu baax a baax lu mu la wax nii du dañ en privé rek dañuy dund ak moom loo xamante ne euh, da wax mais bu ci waxee loolu moom ça la lie à vie ça mënatu ko changer ba mu taxee publiquement jàkkaarloog président Macky Sall man du ma ni kuy fayantoo lii ngeen def commencé na ëpp politique jaru ko parce que boobu bakkan yaa ngi bakkan yaa ngi daanu donc je crois que loolu bu amee ñu aatu la aatu la nga dem ba ci biir euh, gis ne yow da nga naw sa bopp te kii nga jàkkaarlool yow nawloo ko am nga doole yaa ngi autorité état dem ci biir gis ne def nga dellu si def laa dem si boo xamante ne même ñi nekk sa boor nee na d' ko ñun ñu ne d' accord uñ ko famille de victimes yi nee na d' accord uñ ko et à juste titre parce que même moo ne ku fi yore sa doom jur ko fu nga ko jur war a juree yar ko mu màgg sàccul fenul damaa bëgg sama dëkk dama am droit constitutionnel bu ne am naa droit dem manifester nga manifester nga dóor ma bal si torak si ma daanu c'est-à-dire que boo ñëwee naan ma noonu nañ ko baal amul problème c'est quelque part euh, yow li ma yëg peut-être yëgu ko wala benn Sénégal lañ nekk quoi après ñun nous sommes en pole position par rapport ak ñi fi nekk ñëpp parti politique yi fi nekk yëpp di jongante même gouvernement bi seen parti bi nga xamante ne moom moom la ñu yore ñu ñu ko ngànk laa bëgg a wax benn bokk yaakaar xam nañu ren la jëlee a bu yàgg loolu xam nañ ko loolu bu amee ci dëkk bu mel nii ak situation bi ñu toll kenn waruñu woon jiitu ci ci ci ci ci ci stabilité réew mi kenn waruñu si jiitu donc yow da nga yaakaar ne euh, loi d'amnistie bi euh, waa nguur gi la gën a soxal ñoom la gën a yitteel mais c'est évident c'est évident parce que xam nga man mon exemple par exemple man ils m'ont pris dem nga ba si biir wax nga ko sànq ñu yokkal ma beneen euh, mandat de dépôt bis mi koy yokkal sama avocat yi dañ ne juge bi lan mooy élément de preuve bi génnewuñ dara c'est que procureur moo leen ko sant yi moo pris parce que loolu avant muy am dañ jëm chambre d'accusation dañ njëkk a refuser sama euh, liberté provisoire dem chambre d'accusation euh, l'avocat général l'avocat de l'État nee na man mënu ma comprendre Fadilou ngeen jàpp ko téye ko fii liberté provisoire am ngeen bañ ko dossier ngeen te bëggoo leen dem ak moom procès bi yoon je suis obligé de suivre le. Euh, l'ordonnance et de le libérer. oui l'ordonnance du l'ordonnance du du procureur mais benn yoon jëleen ay dispositions pour ñu libérer ko. seen bi su topp seen ambale affaire yi indi benn mandat de dépôt bu bees te Dieu sait que waxuma man de mais Ousmane Sonko ak Diomaye j'ai collaboré avec eux j'ai travaillé que connais Ousmane Sonko je sais que Diomaye énormément travaillé ensemble mënoon naa la toog fi la limal bu bëri loo xamante su ma la man j'ai beaucoup travaillé avec lui sous sa coupole au sein du mouvement des cadres c'est quelqu'un que je connais que j'ai pratiqué musuñu toog di planifier acte yi ñuy wax di ko teg suñu kaw cest que suñ ko mënee teg suñu kaw delloo ko teg ko suñuy rakk c'est-à-dire que loolu tooñ kese la maintenant que ces gens là reviennent pour dire que dañu bëgg jàmm Sénégal ñun kenn waruñoo gën a bëgg jàmm parce que fi ñu toll suñu xeex ci politique tollatuñu si kan mooy nekk devant la scène kan mooy gagné ak kan moo dul gagné parce que ñun xam nañ ni am na fu ñu ci Sénégalais yi muy benn kenn waruñoo gën a bëgg jàmm si dëkk bi mais si on en arrive à ce à ce niveau de radicalité là am na lu ko justifier parce que dem nañ fi dialogue nit ci dem nañ fi dialogue au sein du FNR même bu yàgg ba Pastef était représenté y avait le frère Aldiouma bu doon liggéey ak ñoom mais bu ñëwee dialogue boo xamante ne chaque fois c'est des conspirations chaque fois c'est des choses pour gën a écarter Ousmane Sonko c'est des choses pour gën a indi ay mbir yoo xam ne dañu koy teg sunu kaw ak dialogue bi nga xamante mais décision bu ñu jël ban force exécutoire la am sànni personne même le président leur a dit c'est-à-dire que man doo ma woo ñëw toog nga may écrasé naan man non de toute façon yéen mënu leen ci dara man maa yore décret bi nga xam pourquoi m'avoir appelé pour la dem foofu bu ñu fa demee ak bu ñu fa demul lan la ñuy yokk yóbbuñu kenn